حميد من يحسمني من الضرر من كل شيء كان وجل بالبشر والجلد والبشر سبحانه ربنا في سنة

الذي تعزم من بك اعتصم من كل ما يومه من النقم لك اموري ابدا افوض وكل من لك التجا لا يفقد وغيتني هذا الركوب البخيل ma kàddu waaye awma kàddu sax boo koy wax kàddu lay doon ndax dëkk bi kenn rekk fi am kàddu mooy sëñ bi ak ki sëñ bi waxloo ki sëñ bi waxloo nag mooy porte-parole walla ku mel ni yow koo xam ne daal fa ne la muy wax xam nañ ne sëñ ci sëñ bi la bàyyi nga xam ne ñooñu ñëpp moom da leen di avaliser di leen cautionner ci ci darajaam ak kàddoom tey jàngal ñi ci des ñëpp ne leen dëkk bi kenn rek fi mën a dëkk nekk ci texe mooy ki nungu ki am kilifa loolu moom mooy li muy jàngale te jàngale googu xanaa nit ñi ñàkk ko mokkal waaye ko ko mokkal di nga yëg jàmm joo xam ne ak texe goo xam ne buñ la ko doon bàyyiloo da ngay lànk dootu ko bàyyi rafetlu na nag seen taxawaay lool ndax xam na ne yéen ñëpp da ngeen ne ci dëkk bi di liggéey waaye am ngeen ay soxla ni ñëpp te seen soxla yooyee lu ci bari da ngeen koo muñ ngir mën a représenter dëkk bi soxlaas dëkk bi te soxlaas dëkk bi mooy soxlaay nit ñi kon en fin de compte dangeen ngeen a bàyyi seeni soxla di sacrifier wu ci soxlaay nit ñi loolu loolu mooy li nekk loolu itam moom sëñ bi daf ko xam ndax sëñ bi dafa xam institution yu ne bu gisee ab gendarme walla ab policier walla genre yu mel noonu dana leen jox daraja delloo leen seen bopp delloo goo xam ne xamal ne xamal leen ne leen yéen li ngeen di def li ñu leen di fay matu ko ndax li ngeen di def dafa dafa rëy da ngeen bàyyi seeni nelaw ngir nit ñi mën a nelaw da ngeen di bàyyi seeni soxla ngir nit ñi féex loolu kenn mënu leen ko fay lu dul wan leen ne leen yëg na yëg nañu li ngeen doon